wax da nga wax léegi lu am solo maanaam dañuy des dañuy des ci yow ba tey bañ a dugg ci actualité xaar ba ci kanam. Ah bon waaw parce que c'est ah, pas pas ça parce wax ju ma xawal laal léegi nga ne ci sa biir wax bi ngay ndorteel wax ji nga ne nga ne sama àdduna yëpp man tuuma la wax jooju man daf ma daf ma laal. gis nga bi ma nekkee xale xale bu tuuti. Hmm. am na un jour tuuti ma xaru. Hmm. xale laa woon parce que dañ ma tuumaaloon. ay quinze ans mhm. dañ ma tuumaal mhm. euh, et puis parfois tuuma yi day vraisemblable ba nga xam ne mhm. kenn du ko am na am na benn colonie de vacances dégg tubaab nag am na lan téere tubaab dëgg dégg tubaab day vraisemblable jàng bu njëkk bi la enfin xam nga mu koy waxee dafay nuru waaw noonu ba nga xam ne nekk tubaab bu xóot nag yow tamit. dëgg la nga ni ci 15 ans yi. tuuma boobu dafa dem ba nduroo. déedéet wax ma ci 15 ans yi c'est-à-dire tuuma yi may topp. Mm-hmm. des fois day ñuul sax dëgg. parce que mës naa dem benn colonie de vacances. si loolu la tuumaale tuuma bi ngay wax nii bëgg naa xaruloo. déedéet bokk ak bi ma nar a xaruloo non boobu loolu la nar a xaruloo doo ko wax quoi. tu comprends parce que day nekk lu lu profond. Euh, et puis jeune j'avais 15 ans hein. donc euh, xam nga man euh, moniteur de collectivité éducative la mm-hmm. nit ñi xamuñu ne éducateur la aussi ah xam naa loolu dina surprendre ñu bëri dama doon jël ay doomu jàmbur di leen yóbbu colonie de vacances di leen encadrer di leen former di leen jàngal et tout ça mm-hmm. on est à Saint-Louis ci benn école j'oublie le nom foofu la ñu defoon colonie bi guddi gi les moniteurs nous les moniteur mm-hmm. dañ daan génn dem dem dem baali quoi découvrir Saint-Louis dem ay chaumière ay xaw ma feneen fan foofu daal laa fa gën a retenir ma ñibbisi ci guddi fekk on dormait dans des box mhm. ma ñëw fekk ma kenn ci box bi ay ay mat la yu tegaloo nii ci suuf quoi ma daal di ñëw dugg su meeku tëdd tranquillement jékki-jékki rek benn moniteur dugg waaw ça va kañ nga ñëw ma ne ko ñëw naa sànq ñu waxtaan tuuti tuuti mu téye commencé téye saagam di xool di xool di xool di xool mu ne ko dafa am looy seet mu ne ma sama xaalis quoi waaw ah bon mun ma kenn dugg fi ah man ko non kenn dugg fi wax dëgg yàlla fekk ma fi kenn te kenn dugg fi man kese maa fi nekk parce que moi je me mets hors de cause quoi mm. ne seet seet seet ni ma saa neexul ba neexul mais sama xaalis mm. ñu bëgg a jàppante foofu coow li ni kur ñii ci suuf dégg coow li daal di yéeg lan la sama xaalis sama xaalis sama six mille francs moom fii laa ko tegoon sama suuf saak moom kenn moo fi dugg ñëpp di ma xool quoi ma rus ci saasi mm-hmm. parce que ku ñu ni yow kenn fekkuloo fi man kenn fekku fi kenn fekkuma fi kenn man kenn maa fi nekk ñu ni waa ji te yow sa xaalis fi nga ko bàyyiwul ah doy na rek Marème ñëw kooku du ma ko fàtte mukk elle s'appelle Marème mm-hmm. lan la lan la yow defal ndànk sa xaalis yaa ko bàyyi fii ci lal bi fànn te tere nañ leen ko man maa ko jël dencal la ko pour mu bañ a réer ñu wax lii lañ mm-hmm. et puis c'était même pas six mille francs mm-hmm. c'était sept cent francs oh. <laughs> lépp lépp si bëggoon taqal la donc imagine jour boobu jour boobu su femme boobu ñëwul woon doo mucc foo ñu la yóbbu bu la yóbboo ci procureur sax yow yaay sàcc loolu lu ma yàlla naxtoo la dama am moralu euh, euh, dékku ko dama am moralu dékku ko te ci biir loolu aussi dañ lay fexe lu nekk dañ lay piéger ci lu nekk ñun ñun dañu sonn mais yàlla may nañu dëgër laay boo xam ne jaaxal nañu bëri. si yow yow xam nga kii nag moom. du journaliste. Ah. sama xarit la non pour man. waaw waaw sama rakk la. d'accord damay waxtaan ak moom. yow da war a xàmmee waxtaanu biir néeg ak liggéey. waaw comprendre. waaw ah, loolu dañ leen voilà loolu di ah, moom moom <laughs> moom moom. <laughs> moom su ma paree. Mm. moom dinaa ko wax lu bëri. Mm-hmm. maanaam yéen a ngi ay turu chef may waxtaanal. waaw mm-hmm. yéen a laaj ay ñu nekkoon ci ñu wax. mais bu tax gars yi ñëw jënd ci gars yi ñëw jox bagage yi pour bëgg loo xam ko dugal. man amoo nga koy fàttaliku ba nëgë ban moo la gën a marqué tey ci tuuma yooyu ba ngay wax ni tey à chaque fois lu jug rek ñu bëgg koo taqalee ci sa der. affaire médecine. médecine loolu mooy li ma gën a naqari parce que léeg ay problème mu àddina la woon rek mais lii lay topp ba faw la parce que nit ñi dañ lay gis sax di la ragal. Mhm. di la teg reykatu nit. Mhm. di la teg nit ku bon. Mhm. ba boo waxee lu lu lu yenu maanaa sax ñu ne pourtant kii de xam na lii xam na lii xam na dara. pourtant kii de ku normal la. donc yooyu loolu yëpp tam li ko indi. mooy samay jaloore 88. 88 88 ñëpp xamoon nañu maa doon def attentat la voiture piégée. Mm-hmm. école française bi bi ñu toogal fii Wakam. xam nga fan la nekkoon. Mm-hmm. Yaraax route des hydrocarbures. Jean Mermoz bi. Jean Mermoz bi fële la nekkoon Yaraax route des hydrocarbures. d'accord booy dem booru booru Bel-Air noonu. xam foofu dafa am ay bande pétrole ak essence yu nekk foofu ay station Shell ak seen bande yu ngand yooyu. Mm-hmm. seen stockage de carburant bi. dañ leen menacé au téléphone ñu dañuy attaqué dépôt d' dépôt d'hydrocarbures yi à mm-hmm. la roquette incendiaire te bu ñu def ay dégâts collatéraux nañu toxal élèves yi on leur donne une semaine waaw mm-hmm. une semaine ñu toxal ek ñu ñu dem démobiliser boobu ñu ngi bëgg a internationaliser suñu dit mm-hmm. on n'était sérieux on n'allait pas le faire amuñu roquette incendiaire amuñu dara mais comme taal nañu bomb ñu gis suñu waxee dañuy gëm donc noonu la ñu mottalee xeex parce que on était que quatre loolu moo tax Jean Collin bëggoon ma rencontrer Jean Collin dama ko jaaxal. ok dama toog ak moom wax ak moom te loolu privilège la woon. Mhm. man a cet âge là toog naa ak ay Jean Collin toog naa ak ay Ablaye Wade man damay dama dama teel a dugg dans la cour des grands moo tax ñu écrasé ma loolu kese la. Mhm. donc dans la vie. Mhm. yu mel noonu da lay da lay marqué effectivement. mais affaire maître sëy bi comment l'as-tu vécu nan nga ko dundee. Euh, au début. métti euh, woon na mais après. Euh, dama ko dund avec beaucoup de philosophie euh, beaucoup de philosophie parce que euh, euh, prison day defar nit moo tax ci benn côté je suis content pour un combattant comme Cheikh Omar Diagne mu mottali formation foofu foofu université la tey jii li may wax ci ressources naturelles yëpp est-ce que xam nga dama naroon ñëw ak ay documents ay archives pour won leen ko yu ma téye la non je me suis bon du ko du ko jar parce que comme affaire u koor la yooyu. tout affaire u te moom te mu jox la ay. non wax ma waxu pétrole de wax ma fii. c'est-à-dire. ah ma leen di jox. Mhm. laa ko toggee. Hmm? lu bëri mais foofu foofu. da ngay pour jàng. da ngay xool quelqu'un comme euh, euh, euh, Cheikh Omar Diagne. Mhm. mais foofu. il va la production intellectuelle yàlla bu mu fa yàgg yàlla bu mu fa yàgg mais foofu milieu la bu propice à la production intellectuelle et à la réflexion d'accord di fa mën a jàng alxuraan man dama xaaw a teel a génn sax maa ngi woon ci yoon boo xam ne ci wàllu alxuraan fiq ak sunna boo xam ne su ma ci tegoon deux ans rek macha allah. ci biir prison waaw ci waaw su ma ci tegoon deux ans rek. parce que génn naa euh, maa ngi maa ngi jaar di nuyu oustaz Dieye. xam nga sama sëriñ euh, Cheikh Moussa Dieng ñooñu ñoo may encadré commencé woon naa di continuer jàng sax mais activité professionnel mayetuma ko woon parce que marier laa woon dama doon dem di wuti ay crevette euh, dans le Saloum di wuti ay jën ba ay Guinée Bissau di jaay Gambie ak yooyu tout ça donc amatumoon temps wu toog jàng temps boobu prison rek nga koy amee hmm. te ñu nekk foofu ñoo ëpp information sax ñu nekk ci biti donc euh, euh, dund naa ko avec euh, beaucoup de philosophie. Mhm. te jàngee naa fa lu bëri bëri bëri yàlla may na ma fa dal. Mhm. may na ma fa maîtrise de soi. Mhm. parce que prison aussi c'est un lieu de privation de liberté. waaw dix ans amoo benn activité de loisir loolu lu metti la. surtout benn vie social mhm. ak sa famille. Mhm. lu metti la. Mhm. waaw euh, li ci gën a metti. doo am ñu bëri duñ ko mën a wax. benn activité sexuelle pendant dix ans. donc loolu da lay forger. sa soxna bi nga nekkaloon balaa nga fay dugg. bi nga jënd aw ma soxna. Ah, aw ma mm-hmm. soxna bi nga jëndee nga am soxna. waaw man c'est célibataire c'est-à-dire man euh, le fet que ma am soxna sax lu baax la ci man parce que daf ma dafa wàññi sama engagement. sa ànd parce que day am ñu may sóoraale ah, léegi. tu comprends man avant j'étais célibataire. Mm. j'étais célibataire quoi sama yoon ci sama mbakke nag sama mais man ah, mais nii nii dama doon affronter ay hommes armés. mais ñun ki kii nga. Euh, euh, dañu. beneen dañu tombé waaw. non dañu tombé. jombal nga ko de. dañu tombé benn président bu tudd Abdou Diouf. Mm-hmm. Aïcha ni nga may xoolee nii nag. <laughs> ragal moom tàppet la moom dañu nelaw ko yeewu rek. dañu dañu amoon président li ma ndogoo. non zoomel zoomel leen ma ko kii non Aïcha moom na koy bàyyi mi nelaw ko yeewu prison bi foofu noonu. sa vécu biir prison. balaa ñu ciy génnaat. parce que yaa ngi wax mais. yi ma ci yi ma ci gën a marqué yi ma ci gën a marqué. Mhm. c'est-à-dire prison dafa am ay ay yu fa nekk. ay nit ñu jub ñu fa nekk xam nga Cheikh Omar Diagne kenn du ni sàcc la mhm. kenn du ni reykatu nit la mhm. kenn du ni euh, euh, njaalookat la mhm. nit ku baax la ñu mel noonu dañu bëri prison te ñu fa nekkoon nekk nit ñu mel noonu dañ ma yéene woon seen xam-xam dañ ma doon jàngal alxuraan ah, kon jamono yooyu nga ko xam laa xam kan. Euh, xam xam-xam bi Cheikh Oumar. non non non Cheikh <laughs> yow Cheikh Oumar. Mm-hmm. dëgg euh, maa ngi ko xam ci euh, suñu combat démocratique. Mm-hmm. d'accord mais mais delluwaatal prison. léegi léegi nit ñu mel noonu dama ko jël rek pour illustration. Mm-hmm. parce que yoon teg na ko loxo yàggul. te ñëpp mën nañu seede nit ku baax. du bandi. du Samba Boy ñu mel noonu dañu am prison dañ ñu bëri bu ñu déggee prison dañu foog ne ay nit ñu bon a fa nekk bëri na fa nag ñoo fa ëpp mais comme Colobane rek ku dégg Colobane foog ne ay agresseur ak te am na fa ay góor yàlla yu daan seen doole ay nit ñu am seen cantine di kii donc ñooñu ñu bëri dañ ma doon yéene ci seen xam-xam ak seen baax mm-hmm. dañ ma doon formé di ma jàngal te doo leen mën a sax remercier di leen citer. parce que bërëb bi ngeen xamante moo tax. mais am na ñoo xam ne vraiment euh, mënu ma leen fay. à te am na ñoo xam ni amoon na benn talibé talibé baay Niass bu bëri woon xam-xam. moom dafa ma doon jàngal alxuraan ak arab man ma koy jàngal anglais. ku bëggoon ku bëggoon ku bëggoon euh, euh, anglais la. donc parce que man am naa brevet d'anglais aussi. donc foofu di nga fa xam sa bopp. mais di nga fa xam aussi sa borom. te man dama doon liggéey foofu mos naa ko wax ci seen benn émission fii. xam nga yéen ak ma naan fan laa jàngee defar explosif fan laa jàngee pétrole yooyu tout saa nit ki man dama yoroon foofu atelier. ci biir prison. waaw dama gis dama toog un jour. benn booy may ma benn daal xam ngeen daalu plastique yooyu. waaw ah. euh, tic mm-hmm. tic. tic tic daalu ndeysaan tik tik tik ñu dem ba ba raser ba jeex mhm. mm-hmm. dañuy dagg li nekk ci kaw mhm. talon bi rek dañuy dagg li nekk ci kaw jël semelle bi mhm. jël jiin dagg ko def ko ay ay ay nu mu tudd ay daal yooyu nu mu tudd sax non pas espadrille mocassin ay mocassin ay mocassin léegi nag booy dañ ma admiré woon benn booy ñëw offrir ma dàll yi quoi ma xool dàll yi mu am forme mocassin fii ma xool semelle bi muy semelu plastique ñu ñëw ko à ma sol ko mu jàpp sama tànk mu rafet ma woo booy bi ma ne ko yow foo jàngee lii ma ne non fii gars yi dañ koy defar ak yooyu ma dem seeti ni ko man dama bëgg a tijji atelier cordonnerie fekk am na ay cordonniers yu nekk foofu ay booy Médina et tout ça mm-hmm. ma regroupé leen di jënd euh, euh, euh, matériel de cordonnerie bi di ko yónnee ñoom ñuy defar ay dàll ñuy jaay. ci biir prison bi ci biir prison bi. comme waru yi mooy liy nekk ci kaw dàll yi. Mhm. parfois dañ koy ñëw. Mhm. ma ni régisseur dama bëgg atelier euh, euh, euh, confection aussi. Mhm. mu jox ma benn machine ma jënd yeneen ñaar dolli ci. ñuy liggéey ba am commande. bu dem France am na benn chaine de magasin bu tudd Morgan en France. été quatre vingt dix huit xaw ma seen chaussures d'été yi ñuy jaay ñun ñoo ko defar. parce que benn femme moo ci amoon commande six mille paires ñun ñoo ko defar donc dañ doon defar yére ba noppi dañ doon defar tenue gardien. gardien yi seen tenue ñu doon sol. jamono Abdou Diouf. Mhm. mais daawuñu leen touché tenue ñoom ñoo jënd seen tissu seen tissu yi sax daawuñu nuroo. Mhm. day am kii am bu foncé kii am bu clair mais ñoom ñooy ñëwal seen bopp seen tenue. ma ma ma dugal ko ci sama confection. di ñëw vareuse chemise militaire. ak CREI ak jupe pour jigéen ñi. d'accord ci biir prison bi. ci biir prison bi ñu may passé commande régisseur bi dox sama diggante gardien de prison yi pour ñu bañ tëdd sama xaalis léegi ñoom dañuy def bon ci régisseur mu répercuter ma commande bi. Hmm. ma ma ma ma ma ma ma jox booy yi ñu ñëw. Hmm. par bopp tissu laa doon jën ay rouleau de trente mètres loolu yëpp def naa ko les foires dama doon exposé donc def naa menuiserie aussi créé naa ay meubles menuiserie Euh, cordonnerie ak euh, ak confection loolu yëpp def naa ko doon créer ay modèle comme yii nga xam ne da xalaat benn yëfu dof rek. nga def ah, ñoo ko xalaat. donc euh, xam nga rek. dañuy divaguer rek. Mm-hmm. donc am na jamono joo xam ni man maa ëppoon xaalis régisseur bi fa nekkoon. Mm-hmm. parce que chaque jour noon naa am minimum quatre vingt mille yoo xam ne après mille moo ciy dese. parce que damay fay main d'œuvre quoi mm. booy dama leen di fay prison bi tamit dafay am lu mu leen di jox su ma génnee li ma génnee yëpp naa dese chaque jour quarante quatre mille ci ku ñuy ku caabi tëj mm-hmm. ku caabi féete gannaaw mm-hmm. donc activité yooyu nga def ko pendant combien d'années foofu ci biir prison naa ko pendant trois ans après ñu libéré ma mais avant mais avant yi ngay wax ni li ñu doon tuumaal moment boobu ni mu tolloon ak li ñu doon toppee bi nga yegsee bés prison mm-hmm. guddi nga doon dund lu mu meloon euh, ce n'était pas ma première fois may ñëw prison parce que en 88 arrêté woon nañu ma j'avais fait déjà deux ans et demi de prison Abdou Diouf moom njëkk a amnistier li nit ñi xamul. Hmm. ci affaire voiture piégée yi. ok j'ai bénéficié d'une loi d'amnistie en 1991. j'ai été arrêté en 89 ñu bàyyi ma 91. waaw man dama demoon ba am ay xarit ci gardien de prison yi bi ñu ma arrêté euh, ci affaire médecine. bi ma jógee tribunal dugg ci oto gardien bi ma jël si bark yàlla dafa doon jooy mm-hmm. waaw dafa doon jooy génn àddina léegi jàll sant bugguma tudd turam dañu dañu dañu dañu jàmm woon parce que prison yi melul woon comme ni mu meloon léegi parce que ñun ak garde yi dañu nekkoon benn mbokk ñun daawul ñu tëj dañu amoon cour boo xam ne euh, du woon benn secteur boo xam ne du woon ay bandi ñoo fa nekkoon ay DDP ñoo fa nekk ak ñun ñi nga xam ne ñooy détenu politique mm-hmm. DDP moo ñu def détournement de deniers publics ñooñu c'est pas forcément des des des bandits bandits quoi comprendre nga ay nit ñoo xam ne dañu am am na ñoo xam ne sax accident de circulation est-ce que xam nga accident day yóbbu nit kaso waaw accident xam nga ko def accident kooku loo bandi mais nit ñi dañu foog ni ay nit ñu bon rek a nekk kaso ay nit ñu baax yi ñu ci kaso yi mm-hmm. ay ay nit ñu am xam-xam ñu am valeur mm-hmm. ñu am dignité ñu ngi ci kaso yi donc euh, dékku naa ko avec euh, avec beaucoup de difficultés lu diis la woon lu metti la woon mais euh, après mon procès et pendant mon procès ci laa am xel bu dal waaw parce que c'était une affaire d'État boo xam ne révélé gul tous ses secrets loo koy gëm naa ne lay leere mais ban période ngay toog di ko xalaat yenn saa yi sax rongoñ tuur amaana non rongoñ man samay rongoñ bi mu feree yàgg na de <laughs> kon jamono dara mun laa jooyloo Clédor. jamono yi. Hmm. si booy xalaat période yi gën a sombre. jamono yi bon je pas mbégte daf may jooyloo. ok mais naqar du la jooyloo mbégte mbégte. Hmm. koy dékku. mais say parents nan lañu dundee woon. Oh, ñoo ñoo ma dimbali. Hmm. maa ngi leen di ñaanal bu baax. moo mon père c'est un éducateur. sama yaay ak sama famille. dans le sens large pas ñi ma bokkal ndey ak rek mes cousins mes cousines ñoom ñëpp vraiment jamono jooju métti na coow li diis na ñaaw na mais dañ ma soutenir euh, dund bi ma doon dund foofu euh, ñu bëri dañ ma ci doxee sax respecté non seulement manqué wu moon dara mais ñoom daawuñu raté visite te ñun dañu xeexoon ba am ay visites spéciales ñun daaw ñu bokk ak ñeneen ñi jour de visite daaw ñu bokk condition de visite la sa visite day toog nii nga toog nii ngeen waxtaan ba doyal nga ñibbi mhm. loolu ñoo ko xeex ba am ko mhm. donc euh, yombalal nañ ñu lu bëri xam nga buñ bu la régisseur nangule nga liggéey ci biir foofu mhm. di gañ xaalis ñoom ñu ci am yow nga ci am say visite du mën a metti sa condition de détention du mën a metti parce que ñun duñu nekk di def lu ñuy tere parce que dañu bëgg ñu jox ñu cër ñëpp ñu joxoon cër aussi bien band yi que garde yi ñëpp ñu respecté woon donc jàmm lañ fa amoon parce que ci yoon lañ doon teg lépp. mu permettre ba say parents amoon facilité bi. samay parents nag ñoom tamit. Mhm. Euh, euh, euh, wax dëgg yàlla ak samay yenn xarit jàpp nañ ci bu baax a baax a baax ba loolu dalay may dalay may moral. man nekk naa prison di jaay yàpp seeraas. Mhm. bark yàlla. Ah. barki yàlla. nu mu demee woon noonu. Euh, ni mu demee woon noonu. Hmm. Euh, sama frère. moo doon dem njaga ñaaw jënd nag jox ko sama soxna. Hmm. Euh, certificat d'abattage numéro 610. Hmm. ku dem Sogas. Sogas ñoom ñooy abat bi Seras. carte numéro 610. turu jigéen moo ko moo moo moo ci nekk. te moom lañ daan njëkk abattre parce que moom kenn moo fa nekkoon jigéen bi abattre su ñëwee visite ni ma jaay nañu lii jaay nañu lii jaay nañu lii jaay nañu lii loolu da rey sa nag ay quatre heures du matin cinq heures du matin mhm. balaa sept heures heure bi nit ñi di xëy yow wàcc nga ak sa xaalis parce que à la cheville ngay jaay maanaam kaar genn wàll wala entier doo jaay ay par ay cinq kilos ay à la cheville ngay jaay mhm. donc euh, da ngay am ku lay jaayal après nga fay ko. Mhm. bu ñëwee defaral ma comptabilité. Mhm. nekk naa foofu jaay yaboy Ziguinchor. Mhm. ay caisse polystyrène yoo xam ne au début ci bateau bi la doon embarqué euh, finalement ma loué camion frigorifique ak contrat. sama ay cousin di ko topp dama dama doon. patron nga woon kay. non du ma woon patron mais dama amoon initiative parce que xam nga euh, prison dafa am vole insertion sociale. parce que nit ki da nga bëgg mu surtout les longues peines. gis nga ku ñu condamné à une longue peine moom mooy condamné à vingt ans am na ñoo xam ne dañ leen condamné à la perpétuité am na dañ leen condamné à mort ñooñu bu ñu benn espoir dañuy violent y a des y en prison am na ñuy dof en prison am na ñuy xaru en prison am na koo xam ne dañ ko tuumaal gestionnaire boutique la woon ndeysaan ñu tuumaal ko affaire bi metti ko séeréer yi malacon xam nga malacon loolu ñuy bu brut bi bu brut bi moom la naan mm-hmm. on n'a pas pu le il est parti comme sax malacon moo la benn benn insecticide la benn insecticide la donc yooyu yëpp day am foofu mm-hmm. da ngay gis nit ku dugg sain mm-hmm. mais da nga jékki rek gis ko mu mu la raison ñu yóbbu kat manière yooyu yëpp dafa am parce que foofu mental nga war a yor pour dund foofu. waaw et posé parce que xam nga euh, euh, boo nekkee dans des dans des actions dangereuses quand tu poses des bombes. Euh, war nga am par exemple moom xam nga <laughs> non non c'est-à-dire je j'en parle pas pour me glorifier mais dama la bëgg a wax rek ni loolu war na la mën a may dal. ak euh, ak maîtrise situation bu mu mënti nekk. mais mais Clédor par rapport ak euh, li nga xam ne moom nga ci dund yëpp ci kaso yi ak vécu yooyu yëpp lan moo euh, nekk sa combat par rapport ak longue détention yi jafe-jafe yi gars yi dund ci kaso bi lan nga ci jot a xeex longue détention moom def aussi. longue détention moom am na kuréel bu tudd ASRED boo xam ne mu ngi ciy liggéey bu baax a baax am na ay association de juristes ay association de droits de l'homme yoo xam ni ñu ngi lutter contre les longues détentions parce que longue détention yi li koy indi mooy criminaliser dossier kii lu grave la def duñ ko juger léegi alors que lu grave loolu mu def sa culpabilité n'est pas établie benn exemple mooy imam Ndao téye nañ ko trois ans après acquitté ko acquittement bokkut ak relax acquittement mooy juge moo ni moom dafa juum yow defoo dara juge moo la setal donc kooku bu fekkoon ni six premiers mois yi lañ ko jugé comme ni ko yoon waxee kon xëy na du subir préjudice boobu donc téye nit ki cinq ans sept ans doog ko àtte man gis naa ko nit koy téye treize ans àtte wuñ ko loolu aussi sacrifier viwu doomu aadama la mm. donc loolu mais li koy réglé mooy euh, état bi recruter euh, ci niveau personnel judiciaire bi mm. ñu mën a expédier les dossiers mais mënoo jël benn cabinet premier cabinet c'est-à-dire doyen des juges tous les dossiers lourds nga ni foofu lay dem. alors que y a d'autres magistrats euh, xam nga tous les grands dossiers nga bëgg ko jox euh, euh, nu mu tuddati doyen des juges. comme si moom rek moo la doy. donc loolu aussi aussi problème la. essayé nañu les maisons de justice. pour que ma amee la xaalis. au lieu ñu ciy dem tribunal nga may condamné may may feesal encore foofu alors que mën nañu trouver benn arrangement. parce que loolu du du délit bu grave. wala ma yàqal la sa dara. wala wala ñu xeex gaañante coups et blessures volontaires léegi dañ ko criminaliser tu vois Macky Sall léegi nee na loolu c'est criminalisé xam nga fii dëkk bi tamit dañ dañ da dangay waaru d'accord dañ dem ci yàqu ko donc maison de justice waroon na mën a désengorger prison yi mm-hmm. euh, parce que yenn délits yi mm-hmm. waroon na waroon euh, wa waroon na mën a tax ñu yóbbu nit ñi systématiquement mm-hmm. sous mandat de dépôt d'accord Clédor euh, bala ñuy dugg ci beneen ponk euh, le président Macky sax am ngeen ay ay ay liens yéen ñaar. non su lien mos ngeen am dans le passé lien yéen ñaar aussi. Mm, par personne interposée. d'accord bay la woon. bay la woon. et puis euh, c'était l'ami de mon ami. koo xam ni Assane Diop bi nga xam ni ñoo ñoo bokkoon ci affaire bi